ngi leen nuyu yéen ñëpp kàddu yi ñu fi dégg mooy wane Sénégal fi mu nekk tiit réew mi boobu ba léegi luñ ci mën a wax mi mi ngi am jàmm ku nekk yaa nga ci say soxla di ko dox waane dafa mel ne Macky sàll fi mu nekk dafa bëgg jaxal réew mi li nga xam ne moo doon jàmm di sérénité ak calme mu bëgg koo salfaañoo ñuy wax dàq élection mais ñun ñoo ko war a laaj Ousmane Sonko le leader de l'opposition Bassirou Diomaye fay suñu candidat duñ ko may sax temps de parole électoral bi mu mën a wax xanaa ñun kay bu doon am élection ñun ñoo war a kaas pour ñu reporter élection mais ñu ànd ak suñu ngor ànd ak suñu jom ak suñu dignité ne lu métti métti nañu dem ci élection yi parce que xam nañu ne bëri bëre bukkeeg mbaam la ala kulli àll le 25 février 2024 Bassirou Diomaye Faye la ñu teg mu nekk président de la République alors bu fekkee ne nag li ñuy wax dëgg la ñu ne suba dafa bëgg waxtaan ak askanu Sénégal ne dañuy dax élection yi may wax askanu Sénégal professeur Mary wax na ko léegi bu boobaa Macky Sall nekkatul président du Sénégal bu boobaa na jaral peuple Sénégal ñu taxaw dem prison génne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu ñëw fekk suñu parce que ñaa plus de justice ñaa plus de droit doole moo fi jaay te doole peuple Sénégal moo ko moom de quel droit mu ne da koy reporter bu amee seen problème bopp nañ ko am régler ko ñoo tàbb koo xam ne kii wóor na leen ne mënuñ tem loolu ñun lu si suñu yoon comme l'a dit quelqu'un ici tout à l'heure ils n'ont qu'à régler leur problème interne déjà sama temps de parole tey ci suba ñu bëgg a yeewu ne Macky Sall ne élection di fa am fu quand même la communauté internationale CEDEAO Union européenne c'est Macky Sall qui vous a invité pour que vous veniez observer les élections nous avons entendu ce que vous avez dit par rapport à la candidature de Bassirou Diomaye Faye à tout ce, à ce que tous les candidats soient à égalité nous avons appris que Macky Sall a corsé les conditions de détention de Diomaye ce qui est injuste intolérable inacceptable je vous rappelle vous la communauté internationale que Macky il l'a fait pour le Mali Il l'a fait que nous sommes en guerre est que nous sommes en guerre Pour qu'il puisse, lui, ancien président de la CDAO, demander le report des élections Vous êtes des témoins de ce qui se passe, de ce qui est en train de se tramer. Et comme c'est lui qui vous a invité pour que vous veniez observer les élections, pour que ça soit des élections libres, démocratiques et sincères, vous avez l'obligation de dénoncer ce qui se trame et de façon forte, si demain, comme on l'a dit, en s'adressant à la nation, il décide d'arrêter le processus électoral. Et on ne sait pas ce qui va se produire parce que ce sera un précédent au Sénégal extrêmement dangereux et cela pourrait se propager aussi dans les autres pays africains de la sous-région. C'est une responsabilité que vous partagez. Et j'ose espérer que quand même, je vous ai dit depuis le début que Macky Sall il a un problème de cerveau. Vous m'avez pas écouté. Mais cela se prouve wëndeelu na ba miir fi mu nekk xamatul fu mu jëm quoi. alors mais doful jinne jàpp ko li wolof yi wax golo moo la gën a xam xaali ma jëmb bu reporté élection yi du ko jig maa ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf merci beaucoup